Thank you. gannaaw buñ sante yalla julli ci bi sallallahu alaihi wasallam ngi fi ci Atlanta Georgia nak ah, li nekk di xew rek moy July 4 2016 nga xamne Atlanta Gambia Emergency Relief Association ajera ñu leen ko di indil at bu nekk ah, moy celebration of American Independence July 4 nga xamne Gambians around the world dañ dey gaada fi ci Atlanta nak pour celebrate li ñuy organize series of activities nak ah, cultural weekend la dee doore nak yalla dafa def ren July 4 bi tombé um, on ci bir wéri koor bi Ajera pushon konak nag ba tey ji muy July 22nd ñu door activité ci nak wute cultural uh, night ngeen gis Gambien si yëpp génn si macha allah ñëw rek sanse bem rafet ñu wara a ciosan cosaan ada ñew fi nak celebrate li nga Mui moy July 4 2016 uh, right now nak ki gis ci ko stage bi uh, Guarantee Trust Bank la nga nyom ñom ci si sponsor ci lañ bokk ñun duñ def dara rek do ñu dugg ci biir bi rek am a couple of interviews macha allah waxtaan ak mbokay ak andi di yi nga xam ñu ngi fi rek rek xana ñu dooree ajaratu bi rek alaykum ajaratu naka nga def tour bi nak Hadi ndjay Kebe Hadi Ndiaye Kebe ah yow sa jeker moy président ah macha allah Hadi ndjay sa sant bi rafet na de jërëjëf ci rek ñew pour support ajera bi how do you feel tay nga gis gambian ci ci Atlanta ñu génn ci ak around the world pour ñew support sa ñoom jëkkër ci cultural event bi nii neex na trop ma ne further to introduce amul dara lu ko daa gis sa mbokki Gambien yi together loolu rek lu nekk la am na ñoo xam ne sax mu ngi jógee fu sori ñëw suma mag bi ni mu ngi jógee Angleterre pour loolu noonu rek. macha allah jërëjëf Hadi lan nga am pour wax ñi nga xam ne ñoo la nekk di seetaan. xanaa di lay am foon ñu ngi am foon big outside of the next by next year try by all means tour bi man Fatou la tuda Fatou yow xadi wax na ñu ne yaa ngi jógee ba Angleterre ñëw rek pour jàppale Ajera how do you feel nga gis ah, ambien su nekk Atlanta yëpp ñu génn si allah pour support ah, naka nga gisee cultural activity so far kontaan naa moo boo seeti suma mbokk yi bëgg naa gis waaye kontaan a trop. ah hiver bi a toj Atlanta nit ñi wuyu si nañ yëpp xam naa ne activité bi dara dooragum ba pare ngaa xoos kay. pare naa xoos déedéet tey damaa faxas. da ngaa faxas <laughs> <laughs> waaw soo suñ paree rek ñu bomba waaw. <laughs> ah dawda session téléphone nade bi fi lañ ko ñëw ndax banjul banjul banjul ah dawda naka nga feel tay nga gis gambien ci nek atlanta ni ñu genn ci pour ñëw am such a wonderful time together ah santa yalla rek di yokka ñaan gaay nekk ñep nekk ben rek jappo dimbalante towards gambia pour yalla def jama rek yalla defal ñu jama defal ko community bi tam waaw ah. nah, jere jere dawda lan nga am pour wax ñi la sétane waaw ah, di leen sant rek ñoom itam di leen ñu ñu nekk benn as a Gambien ndax ñu mën a defar suñu dëkk yàlla def si jàmm. gaañu macha allah yéen a ko gis nii rek la ko Ajara di defee ah, léegi luy ñëw si nag nekk ah, mooy cultural night bi si lañ nekk nii am nañ fashion programme modèle seeg ñëpp ñu ngi biir macha allah dinañ génn si rek pour ñëw wan leen showcase ay Gambian businesses da Ajara indi pour ñu ñëw jàppale li nga xam ne mooy communauté bi. yàgg nañ di def event every time di indi programmes yu bëree bëri bëri ah, waaye nag ren bii bokkul façon ndax Ajera dañ indi jëf yi def ko Gambia indi kii di Modou Moussa Cissé nga xam ne moom ah, comédien la bu mag jóge ci Gambia ñu ñëw tamit indi leen ay modèle moo xam ne ay fashion designers ñu mel ni ñoom trésor Kumba defee ak ah, ki nga xam ne mooy la excellence gars yi jógee ba Sénégal macha allah ñëw pour defal kenn ba baax nag yéen a ko gisandoo yéen a ngi dégg MC bi mu ngi koo def dara lu ñu sëñ bi naka nga def. sant yàlla tur bi nag. Serigne ah Serigne sa sant bi rafet na de bi fii dañ ko ñëwee ndax Banjul. waaw ah, la Banjul la jógee. ah Serigne macha allah ah, naka nga fiil tey nga gis Gambien ci nekk ci Atlanta ñu génn si am cultural event bu mel nii. Ah, dama bëgg trop kontaan ajara dafa nekk organisation boo xam ne dafa am solo trop trop trop trop trop because dafa nekk fi pour saaf communauté bi nekkut fi pour saaf any individual te xàmmeewul ko ku ko soxla rek la xam te loolu lu am solo la moo tax lu ci nit def rek sa bopp nga ko defal because whatever you do for your community you know you do it for yourself you know so kontaan daal laa def daal ni ma gisee nit ñi ak nuñ fi bëree kontaan naa trop so di encourage rek ni ñi rek ñu gën a def lii rek gën a jàppa ci Ajara because Ajara moom bàyyi ko gannaaw daal du du lu rafet ñun ñëpp ci war a jàppa yëf bu Gambia la du bu kenn te alali Gambia Gambien ñëpp a ko bokk du noonu waaw dëgg la ah, jërëjëf Serigne sa waxtu rafet na sa kaddu rafet na kon boo gën a gis ajaratu Kumba dafa fële ci kaw stage bi comme ni ma ko waxee rek ajara dañ ñëw pour support Gambian community bi ñi ay model designers lañ ay fashion designers ñoo xam ne ñu ngi Sénégal ñu ngi fii nii kon ñu déglu aji Kumba dafa rek ba mu pare macha allah su ko defee ñu continuer interview for to come Dakar di ñëw and then you have a niche there you have a market in Dakar and you are well known in Dakar and the, the people of Dakar love you. So it's actually sad that the people of Dakar embrace us first than our own people, but it's never too late. So we're calling all of you to support us and support so many other designers because when I speak, I don't speak for myself because ñun lum bon bon am na fuñ but there's dèjà am na ñu bari ñu nekk suñu gannaaw euh, macha allah dañ leen war jàppale te also Treasurer um, Muge invests in a lot of other young designers in the Gambia, helping them, investing in their business. This is what we need to do. So today, we're going to introduce absolutely new collection B, and also di this gis suñu collection B. Bayfal collection B, Mumlin Ibe Sénégal New uh, jagleel ko papo papa bu gaañu woon Musa Afi Moussa te um, dañ sant yàlla trop bu ñu ko ko jaglalee parce que ci barke um, Moussa Afia Ngom this um, design has gone worldwide and we have done so well with this Jahas collection and the Bifal collection. So we are going to introduce at the latter end of the of the fashion show. You will see the work that has been done. Loo gis piis by by collection bi du wax rek leen jël ñëw dañ dogat dogat piis yi yëpp dañ ko dagat liggéey bu metti la waaye euh, ñu bëggoon koo jagleel koo Sénégambien la woon so mashallah allah jërë and we introduce to you euh, la excellence design. Come back again. seen i mbooloo fii bëgg ngeen ko waaw def ngeen ko sa bopp waaw loolu la rek waaw jàppalante rek waaw ma ne tàccu leen bu baax ma dégg waay ah waay ci fay waay nee naa daf koy niru waay waay tàccu leen waay ñëpp ay Gambien lañ ñu war a set. ah. so very much. We'll talk justice to this building right here. In 2016 in Atlanta, I'm sure they're going to remember you. Oh, we thank you so very much. The excellence design. Yes. Wow, DJ King Solomon. To the I love ci bu baax a baax day awa fashion ay doomam nag taxawal fii pour fësal façon bu muy wane 25 years mu cay def ba jarul lu baax la ci waa Gambia waaw ñu leen di wax jërëjëf mbokk yi lii mooy façon 2016 na day awa kan façon designer international ay doomam di wane ñëwam fii ci Atlanta ci 2016 na bu leen fàtte nag waa Guaranty Trust Bank ñoo leen may bési tey bii kon képp koo xam ne yaa ngi yónnee sa mbokk xaalis rek na nga ànd ak ñoom ni waa Guaranty Trust Bank ñooñu ñooy banque bu gën a dox ci jamono ca Gambia waaw waaw. Nipolo ke te ti fama buka fenda si for minti Ika so mo buka lo nipo de gom buka di Fumo de yesu de fight ni singi kun se kadi Nuo lu problem on fong wo si ala bodo fati Mfas de la dia mo la nadia te mandinka sisters yi ñooy ñëw def si seen display waaye balaa gaay di si rek incha allah gis ngeen li nga xam ne loolu la fi la excellence ak trésor combination bi def gis ngeen Ndeye Awa Kane fashion jógee ba Banjul tamit lim fi def ah, right now nag ah, mandinka sisters yi ñooy ñëw génn si fii nii ngeen gis li gaay amal ah, waa Atlanta suñ gisee mandinka sisters yi liñ def rek dafa mel ni ñu ngi leen a kiw right now ñu seetaan gaay den suñ paree ñu continuer interview si rek Gambian leen doon live coverage of July 4 2016 kon boo ngeen toppama rek ñu seet suñ man nañ ko sistas yi li nga xam ne loolu la gaa yi génnee fii fii ci Atlanta Georgia July 4, 2016 Atlanta Gambian Emergency Relief Association ajara indi leen ko ah, cultural night bi tey nag ngeen gis ambiance bu This setup was great and elegant um, lekka was um, fabulous ah, gis ngeen entertainment binga hamne xam ne moom fi indi nga xam this year nag ajara def lu bokkut façon ñu an entirely Gambian thing like put Friday night be in the warm cultural group In the um, di Modou Moussa Cissé international comedian nekk fii America ñun ci Amérique léegi indi ñi Manding Mandinka sisters yi ak fashion show bi nga xamne ak le excellence am wane nañ ko fi ki di nday Awa kan nak jógee be Gambia machallah ki nak ñu taxawal fi moy nday Mbila lagi, moy Awa Ceesay machallah Awa mu namu dara di new social chairman of Ajera ah, nga xamne ne liggéey bu rafet bi ngeen gis fi tay yeb ah, moko put together Awa gàcce nga congratulations. jere eh, jef di kontaan si ñëw bi ngeen ñëw fii di leen gërëm di leen sant di gërëm képp ku fi ñëw ku ñëw ñun nga jàppale te ñu ngi la ñaanal di la gërëm di la sant di bàyyi ngeen seen soxla yëpp ñëw loolu rek doy na ak indi seen xaalis jox ñu yan nañu yàlla may ñu ñëpp ñu am kàttan buñ leen jàpp duñ complété seen mission daf lu ñu war si société bi ndég aaduna jàppalante la nag ñoo jàppale ñu jàppale ñeneen so yan nañu ñëpp yàlla jàppale ñu ñu mun di jàppale wante bis bi nag door nañ ko bis bisimilah weekend bi yalla lañ ko jëkkale ci alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi leen di ñaan ngeen ñew ëllëg ñew gannaaw ëllëg nit yépp yépp ñun ñëpp a bokk ñun ñëpp bokk event yépp so dañ bëgg rek ngeen ñew support ñu ñu mëna support ñu tam suñ agenda yi di dimbale nit ñi back to school yi ñu febar ñu wara dam ñu ñu faatu ñu war leen a yóbbu Gambia ak yeneen ak yeneen ñu ajare di def ñu ngi leen di ñaan ñu ngi leen di ñaan seen participation si loo leen loo leen mën a def daal pour yokk ñu doole ñu leen di ñaan ngeen jàppale ñu ndik mbooloo daal mooy doole. July Fourth ñi nga xam ne ñëwuñ fi wala ñoo xam ne teewuñ fi wala mosuñoo ñëw July Fourth lan lañ expect lan moo dee happen si July Fourth weekend bi naka la dee demee rawatina this particular one lan ngeen a am. Ah, naka laa dooree benn moo eenee. July Fourth bi ñu ngi dooree tee lañ door may door mooy dooreen bi muy cultural night bi. ñu try def cultural festivities invite um, ñu nekk invite fashion designers yu Gambians kenn ki jógee Gambien la waaye mu ngi based in Sénégal ñu invite Ndeye Awa Kane ba pare invite um, Masquerade Society bu nekk Atlanta invite um, Mandinka groupe bu nekk Atlanta ñu jéem a wane daal suñ culture jéem a wane ñun luñ mun suñ xale yuy door won leen naka la naka lañ dee defee ak ñu mun a ñu ñëpp interact jéem a la ekkati daal culture bi mooy woon proposé tey bi ëllëg nag fundraising bu mag la ni Ajara seen mission mooy pour am dimbale nit ñi léegi nag nga dimbale itam foog nga am doole doo mun a ku ñàkk doole mënut a dimbale mënut a dimbale ku am ku amu doole. léegi nag suñu amee ëllëg suñu amee fundraising bi oo nañ mu ñëw bu ñëwee luñ am rek luñ am si société bi laa delluwaat te ñu ngi ñaan ñëpp jàppale ñu mooy samedi bi ba pare bi de te bëccëg si dinañ am <coughs> soccer prac ah, soccer soccer tournament bu xale yi ak mag yi ñu door seen tournament bi pare nañ am luncheon sale si parc bi ëllëg nga xam ne ku bëgg a ñëw fa añ bañ ngaa toog ak yooyu ñëw añ foofu noonu ak sa gan yi dimanche ko final bi sa ko final bi ñu jógee si sa ko final bi nañ joxe awards nañ joxe foofu noonu awards ba dañ fa am tam lu mel ni pique-nique am musique DJ yëpp foofu boobu loolu family event la daal soo dañ ko def mu yomb pour ñëpp mën a ñëw soo waa Makia xale yi ku mu ñëw daal ngaa ñëw si euh, Sunday event bi. si guddi euh, bi ñu ko defee si tam xale yi ñoo dee a faral a ñëw waaye invite nañ ñu ñëw as long as yow ba 18 ngaa ñëw jërëjëf soxna bi ngeen gis nag mooy Awa Ceesay nga xam ne moom mooy di new social chairman of Ajera euh, event bi ñu attend tonight nii ñoom ñoo ko organise jërëjëf Awa thank you very much and job well done. this is your culture, this is tradition. Be proud of it, get up and support the group now. Come on, ladies and gentlemen, let's go. Up, up. Ana Boise, Up. a lot of work done on this. Importing some of the materials all the way from Banjul. Boys, you put it together very nicely. Mama Lord John. real mama, yeah, yeah.